rek la ñu def ci élection législative bi passé sama baat ci kaw sama baat ci kaw les élections législatives de 2012 se sont pas déroulées correctement mm. Benno Bokk Yaakaar seen bopp ñoo gën a xam ne élection yi jaaru yoon ñoom seen bopp ñoo njëkk a dénoncé bourrage d'urne bi amoon ay Diourbel mais ñoom seen bopp ñoo ko def dañoo déggoo xam nga Benno Bokk Yaakaar c'est un grand lumpul bu rëy boo xam ne les gens ne s'entendent pas donc là il y a eu bourrage d'urne mm. personne ne peut dire le contraire je défie quiconque ku ne amul Bougane Dioum si élection législative bi passé je me suis servi de ça pour euh, pour euh, dire non donc j'ai déposé un recours au Conseil constitutionnel. mais am ah ils m'ont dit que j'avais raison mais ça n'entachait en rien au scrutin ah. lu leen neex ñuy def parce que aujourd'hui maanaam am nga dëgg mm-hmm. le Sénégal c'est dommage. que Sénégal ba léegi mi ngi euh, mi ngi mi ngi demee noonu donc ñun ñoo war a xeex yéen ngeen a war a xeex nouvelle génération dañ war a xeex moo tax dañ war a def politique pour fexe ba changement yu bëri di am comme ça man su ma nee dama bëgg a nekk président de la république mais Macky Sall bi nekk président de la république wax leen ma lan la ma ëppalee